mairie bu Hann Bel-Air amal na tey samedi mais fii ci sem an réception denrée alimentaire ngir askan wi yeewoo fii ci commune bi ñeel jafe-jafe yi nga xamante ne jàngoro ju di coronavirus jural na leen ko ba tax 3500 familles jot nañu kit bu am benn saaku ceeb benn butéelu diwlin bu 5 litres 5 kg sucre, ben carton saabu ben potu café ñaari sachet ak ñaari paquet tàndarma ndimbal li nag ko xeyma toll na ci 175 millions francs ci suñu ay koppar mu nek ñaarelu yoon maire bu Hann bel jox nimbal askan wi ginnaaw bu mbass bi tambalé ba légui. conseil municipal bu Hann jël lu mat 175 millions pour ne ñun tamit dañu wara a apporter suñu participation mais yemuñu ci montant rek dañu dem ci préciser pour que chaque bénéficiaire xamné ko képp ku ciy recevoir di nga am benn saaku 50 kilos di am benn 5 donc 5 kilos di am également benn 5 litres di nga am ñaari de tandarma am ñaari mais di am également carton euh, sabu, ax euh, benn potu café donc 1 kilo donc loolu muy juróom-ñaari produit yoo vraiment assister boo xamante en tout cas commission sociale bu mairie Anne mo décidé né dañ koy participer. ci walum sédélé bi nak maire Babacar Mbengue di xamlé ni ci bourse sociale yi la ñuy sukkandiku ak comité de quartier ñu taxawaloon ba ndimbal li mëna dem ci ñuko ko sédélé bi du compliqué parce que bo leen xolé bourse état bourse sociale comme euh, aide bi nga xamné mom la état di ñew dañoo taxawaloon ben commission communale bo xamante ne dañoo jël kilifa commune bi yëpp dugal leen ci képp kuy député nga nek maire nga nekk euh, ASC nga bokk par exemple ñaari zone nga nek ñu jël église bi daal di jël mosquée jël association délégué de quartier muy artistes yi kaddu yara ñi ngi fi top ñi nga am également les frères Guissé donc jël nañu échantillage bu nek nu mu gëna a yaatoo euh, maître Massokhna Kane président pêcheurs donc donc wuñu kenn dañ leen demander à ce que ñu joxé seen xalaat ci naka en tout cas nañ ko wara a séddalee ci tok jotaay bobu nous ñu déjà à les familles vulnérables d'identifier. répartir 4 mais bi mairie nous aussi apporter concours ci nañ d'habitude les mairie la commission sociale Nous njëkk réunir en tout cas PV de réunion et bénéficier mais bi pas présent commission bi ñu toogee biir réunion commission sociale dafa né ñun commission sociale suñu prérogative la mën nañ ko mais comme dañu nekk ci liggéey bo xamante ne liggéeyu état la ñun aussi ñu nekk ben démembrement état liñ ci djublu moy amna ben commission communale bo xamante dañ fa yobbu li nga xamné ne fi am pour éviter déjà ay doublons manam kenn ko am ñaari yoon à côté nga gis ko xamante war na ko am amuko et ci biiri lolu

moy dafa am lo xamante ñun ñëpp état du Sénégal dafa am lo xamante ne ñu tënk moy solidarité té dañu bëgg suñu niveau de solidarité mëna a ci répartition vivre yi nga xamné mom moom jox. ci ay kàddam yu muju nak Babacar Mbengue di ñaax askan wi ngir ñu gëna top li di geste barrière yi ngir gëna mëna mën a fàggandiku rawatina ci cas communautaire yi nga xamante dafa lëmb réew mi. alors cas communautaire yi fi ci commune bi am nañu à peu près 3 cas mais li nga xamné mom moom bëgg wax toujours encore moy buñu faté damay faral di wax né lélé boy tok ay sétane télé wala ngay suivre yenn documentaire da ngay presque dem ba foog né vivre yi mooy xeex coronavirus alors que du lolu parce que dafa am presque sentiment buñu am comme quoi que gaay day mel dañu xaw téggi teggi seen alors que cas communautaire moy cas bo xam te ne xamul ku lako jox té ki nga xamné ne lako jox lenn la bi ci jitu moy na ngay sol le masque kooku daf mën naa presque léegi obligation la na nga sol masque dañu respecter distance yi jël dajaloo ñu masque yooyu yëp mën naa ne facteur boo xamante dafay permettre virus bi mu law benen bi aussi moy fu ñuy toll nañuy raxasu dañuy éviter contact joxante loxo donc japp nañ ne que en tout cas bu ñu farloo ci système yoyu dana wàññi lu bari bari bari bari cas yi nga xam moy cas communautaire. té ñun dañoo tollu ci xex bo xamante il faut que ñu arrêter diko passanté donc loolu comportement la discipline la